gis nañ que seen euh, li ngeen mbébét muy suba ak ginnaaw suba du yomb ci yéen ndax en face euh, on a vu euh, Benno Bokk Yaakaar ils ont tenu deux conférences de presse aujourd'hui le matin les cadres de Benno les les les plutôt di wax askan wi ñu bañ leen wuy si ci folie bi ngeen leen di woo bi ci topp tey ci ngoon la mooy les jeunes de l'APR ñoom nañ aussi ils vont apporter une réponse politique parce que li ngeen di def nii aussi c'est une démarche politique boo Euh, le camp du pouvoir oote le contraire mais li euh, liñ ci mën a retenir nag mooy à chaque fois que ñu oote leneen o si nañ opposition bi bi si mujj mooy oote bi nga xamante ni président Sonko oote na ko à Kër Massar oto bi nga xamante ni PUR oote na ko muy des manifestations yoo xamante ni dañu réussir donc pour dire que ñun on est dans l'action eux ils aujourd'hui dans la réaction on continue duñ ñu divertir cette manifestation c'est pas Benno Bokk Yaakaar moo ko war a interdire moo ko war a paralyser nous sommes dans un état de droit il faut défendre la population de Dakar défendre les lieux ay gas day am ay yàqu-yàqu am am ñu ñàkk seen seen seen seen économie seen koom. non non non non la population de Dakar je pense que ne à quel titre ñoom la ñuy défendre la population de Dakar ak bu ñuy défendre euh, euh, population de Dakar naka lañ koy défendre ñun ñii on fait partie de la population de Dakar ñun on fait partie de la population de Dakar est que ñoom mën nañu interdire ici à Dakar ñu def ci seen seen manifestation du seen role li indi manifestation mu am ay casse c'est tout simplement ñàkk a autorisé à chaque fois que opposition bi organiser une manifestation ñu autoriser ko voyez les gens viennent dem mm. mais nit bu amee droit manifester nga war ko autoriser autoriser woo ko mu xam ne droit am la en fait dafay mais aussi vous abusez maître manifestation chaque chaque semaine dugal defaat pas que ça à faire aussi. non non non mais mais xam nga manifestation yi demuñu jël nit force ne ko da ngay ñëw suñu manifestation. oui mais dëgg la on lance un appel à manifester mais yamul ci yéen en fait. vous bloquez les artères les rues nit ñi bëgg a dem doo ñu mën a dem même bu dee dix minutes mën na am ay conséquences. non non non non non euh, en fait euh, moi je pense que ne ñun ay politique lañ dañuy def suñu action politique. oui on peut comprendre benn yoon par weer. non non non non duñ ko duñ ko c'est-à-dire duñ ko utal àpp. parce que dama bo dama jàpp ne y a question yoo xamante ni mu ngi xew si réew jar na chaque jour ñuy manifeste ah, ah, jar na ah, chaque jour ñuy manifester. non déjà ce que vous prévoyez. on n'a pas du tout bloqué on n'a l'économie. le 14 le 15 le 16 c'est trois jours l'année c'est 360 xaw ma six jours. donc pour dire que on n'en a pas abusé dañuy manifester parce que dañu am lu nga xamante ni moom moo ñu soxal bu ñu résoudre woon ces questions yi nga xamante ni dañ koy manifester je pense que ne ñun duñu manifester mm-hmm. donc pour dire que la balle et dans le camp du pouvoir mooy que sa opposition buy def manifestation da koy déglu et tu essaies de trouver un consensus parce que le Sénégal à la réputation d'être une démocratie d'être un pays de dialogue ce dialogue là la ñu bàyyi aujourd'hui le Sénégal souffre que booy même les leviers le socle bi nga xamante ni Sénégal def si toogoon bu ay tension amee ñu mën a wax ñu revenir en arrière euh, amatul nit ñi déglootuñ sëriñ yi parce que le président de la République euh, parce que sëriñ ñan ñoo ko def loolu nee na yéen la yéen waa opposition bi yéen a banalisé tey jii nii euh, li ñu amoon ci patrimoine jëm ci wàllum kilifa diine yu ni mel ñu wax ngeen dégg yenn kàddu yu ñagasi ci yéen lay jógee sama sama argumentaire c'est de dire que Abdou jouf bi mu fi nekkee y avait l'opposition mais à chaque fois que mu am tension bu ñu waxee abdu Diouf dafay au opposition ñu toog loolu gisuñ ko ci Macky Sall moo tax aujourd'hui le danger lim ñu indi lim ñu jural mhm. mooy li nga may wax casse yooyu parce que les gens ont compris que le leviers sociaux yi nga xamante ni si la ñu toogoon euh, bu ñu waxee duñu leen dégg dañuy seet ki nga xamante ni bu waxee ñu dégg ko moo tax man du ma ko def je suis politique mais je en même temps op euh, euh, observateur mhm. li ma gis mooy que aujourd'hui les Sénégalais li ñuy def mooy à chaque fois que manifestation am nañu laal les intérêts français Macron bu waxee Macky Sall Macky Sall delloo ginnaaw loolu moo jar a xoolaat moi je pense que lu kilifa diine yi mënul sunu dëkk bi euh, le président Macron wara ko fi intérêt français yi ñuy laal kañ la commencé Euh, kañ la commencé mooy bi le président de la république ak son pouvoir déglootul sëriñ yi nga xamante ni ñoo nekk déglootuñ kilifa diine yi ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor euh, le social. dans non mais loolu venu d'un discours boo xam ne seen ay alliés ñoo koy tenir. mais France dégage fa la commencé c'est c'est depuis lors que Auchan dégage ci la gars am réflexe attaqué automatiquement ci li nga xam ne français ñoo ko moom. non moi je dis moi je dis que ne ay circonstances mais li ko waral. li aujourd'hui les régulateurs sociaux ñoom ñoo doxatul kan moo ko tëj loolu mooy la grande question France dégage c'est un discours bu nit ñuy porter mais bu fekkoonte ni violent dans quel sens France dégage nañ fa jógee bu ñu ne woon jii. France dégage France France dégage moi bokkuma ci ci ci ci ci ci mouvance boobu mais je considère je considère que ne c'est un concept boo xamante ni ñi nga xamante ni ñoo koy dawal am nañ contenu am nañ fu ñu ko teg bu ñu ñëwee fi peut-être di nga ci mën débattre ak ñoom ah levier yi ngay wax noonu ne euh, dañ koo négliger dañ koo néewal doole ba tey jii ni mënatuñ ci sukkandiku euh, loolu moo nekkoon sunu sunu sunu doole on disait très souvent que Sénégal sunu force mooy fii la diw nekk fii la diw tëdd fii la diw def lii tey bu ñu euh, loolu ñu koy ñàkk ça veut dire que ne on file droit ci loo xam ne baaxul muy benn ñaareel bi aussi lu nekkoon suñu charme sunu sunu suñu doole mooy tooñante bi ñu doon def entre kal entre ethnie et xeet ak yu ni mel. Mm. yooyu yëpp tey jii dañ ko gis bu baax a baax ci année année yu mujj yi. fan fan la fan la sooxee réellement. waaw damay wax que ne gis nga pays bu ñu demee ba remettre en cause la nga xam ne dafa baaxoon. Mm-hmm. le premier responsable sañu jiite réew mi ñoom ñoo am le devoir de préserver li nga xamante ni moom mooy caractériser le Sénégal et ce pouvoir là dialogue bi nga xamante ni. même bu ñu amee en face ñoo xam ne ils ne font rien pour préserver ça. non gis nga Ousmane Sonko nga gis nga dëkk bu nekk attitude opposition bi comportement pouvoir bi moom moo koy déterminer c'est parce qu'on a un pouvoir boo xamante ni en fait démocratique wul mhm. nangu la contradiction et loolu les prémices dañ ko gisoon bi Macky Sall président Macky di ut le pouvoir fii la ñuy wax mu ne dafay dem delloosi ji Abdoulaye Wade fii la dem euh, à Sangalkam en dix ans dans l'affaire Malick Ba que ne waa Sangalkam ñu ngi leen di encourager ci li ngeen nekk pour dire que le président la li mu xam mooy rapport de force et ce rapport de force tant que dépassé wu ko du du reculer et donc pour dire que aujourd'hui la responsabilité pèse essentiellement sur le président de la République il doit revoir sa copie en tant que président moom moo njëkk am intérêt à ce que ñu préserver la stabilité de ce pays. mais Macky Sall rapport de force bi ngay wax ne ko moom la doon imposer ak son discours bi nga jugé ci la mës a yam ci kaddu la mës a yam Macky Sall mosul délogé Abdoulaye Wade mosul yónnee ay nit def ko dans l'affaire Malick Ba Malick Ba moo décédé après la Macky soo def boobu doobu mais je veux dire mais avec vous euh, l'opposition bi fi nekk jamono jii nii on sent que vos propos ont des conséquences ci li nga xam ne mooy mooy la suite la preuve les événements de mars 2021 on parle de 14 morts après ça manifestation bi ñu interdiroon y a eu des morts am na Colobane am na Bignona mm-hmm. ñu ko comparer en fait. du duñ ko mën a comparer xam nga lan moo tax mooy que le discours violent de Macky bi mu doon tenir Abdoulaye président Abdoulaye topp ko ci loolu. aujourd'hui c'est le discours bu gën a moins violent lool il suffit ko opposant wax ko wala ku nekk ci réseaux sociaux yi lii un citoyen daa wax ko ñu jël yóbbu prison donc pour day revenir ci li may wax mooy que c'est la posture la position la perception bu président de la République am moo tax nit ñi am tendance di radical radicalisé. Abdoulaye Wade n'avait pas une opposition comme vous. Hein? il avait même une opposition républicaine loolu daan wax. mais on a ñun ñun aujourd'hui on n'a pas un président comme Abdoulaye Wade. on n'a pas un président démocratique comme Abdoulaye Wade et c'est ça le problème. sànq yaa ngi naan euh, waa ñi ngeen am en face seen rôle du jëm leen a tere manifester mais yéen na ngeen da ngeen di manifesté te on on risque vraiment d'aller ci confrontation parce que. ni ngeen waxee yéen fas yéene wu leen bàyyi ñoom it nee nañu ils seront dans la rue donc loolu buñ ci tollee. ça ça ça ça devient grave. waa xam nga xam nga opposition bi neex na nekkal. ñaata yoon la ñu interdire manifestation ñu bàyyi ko la dernière fois opposition bi jël na position mu ne dafay def manifester ñu interdire ko y a des gens qui sont intervenus on est revenu en arrière pour mm-hmm. dire que ne opposition bu responsable lañ am le discours peut être chaud mais ay responsable lañ am ku xool le parcours de Khalifa Ababacar Sall xam nga ne nekkul si yenn. moo tax on le reconnaît plus maintenant. non non on, il faut pas me dire di ko di ko di ko ci ci yenn yenn yenn wax yi. non qu'est-ce que Khalifa Sall a dit loo xamante ni teguwul si yoon man loolu laay wër boobu ba léegi. loolu laay wër ba boobu ba léegi nañu résister moi je pense que ne tout opposant doit pouvoir regarder les Sénégalais les appeler à. am nga wax di wax benn wax bu nga wax wax lu garaaw te doo am benn conséquence parce que day fekk contexte bi garaawul mais quand c'est chaud quand on craint des des nga wax lu mel noonu. non non non non en fait on veut qu'est-ce que moi je veux. discuter en profondeur. Mhm. lan la ñuy reprocher dans le discours de Khalifa Babacar Sall. il n'avait pas l'habitude de euh, de parler comment. comme genre du résister nañu lii nañu la Khalifa. dafa mais pour moi le fait de dire que nañu résister n'est pas violent parce que la constitution sax da lay wax il faudra résister face à l'opération. Mhm. parce que pour dire que ne le mot amul benn caractère. donc xalifa Sall attitude bi mu nekkoon ñu xam ko démb ak bërki démb attitude boobu lay yoon mu nekk nit koo xamante ni ku républicain la ñi ñu bokkal yeewu askan wi dañ ko koy témoigner mais le pouvoir si boppam dañ ko koy. li ma doon wax sànq yéen vous êtes décidé à euh, ci manifestation yi le pouvoir décidé contre leen. Mhm. daje boobu noonu mën na am ay conséquences loolu la doon wax sànq. en fait maanaam mhm. euh, mën ngeen ko éviter en. prenant juste par attitude bu responsable daal di nekkat comme que ñu ko am ñu ngi ko seqal ñoom nañoo nar a indi fitna ñun ne bokkuñu ci rocceeku nañu loolu. bu amoon dina dina dina avoir une attitude avoir une attitude de responsabilité mooy. Mhm. nga nga mesurer que ne yow réew mi. su su su su baaxee yow la su bonee yow la nga reconnaître que nit ñi am nañ droit manifester nga bàyyi leen ñu dem manifester xam nga tooñ weesuwul nit di exercer une liberté nga ne ko doo exercer par force cette hmm. liberté loolu mooy source de violence. mais ça di nga am droit hmm. renoncer ci pour jàmm. moi je dis je du ma wax ne du wax ne weesu nañ ko wala weesuñu ko mooy que aujourd'hui sunu manifestation on veut le tenir on doit le tenir et on le tiendra. ak lu mu mënti jur. en tout cas on tiendra notre manifestation. Et vous attendez